muy soxna Maymunatu Kubra bintu Xaadimu Rasul ah dafa doonoon koo xam ne royukaay la jigéen ñëpp royukaay la kon nag ñaanal nga jële fi paju aajo jéggal ah ndax an soxna si ràññi la woon rawat nañ ci ak taalibe jigéen ñëpp ñëpp mën nañoo jàng jàng ci moom roy ci moom ak taalibe ndax comme ni ñu ko waxee Cheikh Khadim moo moo ko yebaloon ci soxna Kat Ja boo demee mu jàngal la taalibe mm. nga xam ne programme bi nga xam ne dañ koy gis wax nañ ne ko dañ ko bëggee porté ca Kaolack dañ bala mu ko def muy dem tàggu gi soxna Kat Ja ñëw Touba tàggu si soxna Kat Ja ko ci njëkk mu soog a am photo bi mu doonoon koo xam ne nii ñu ngi feeñ 1908 ci Jolof ci ci ci Jolof lañ wax ci Jolof la feeñee mm. làqu ci Daaru Salaam ay 1965 kon dundam gi dund dund la goo xam ne dund gu barkeel la kon nag ñu ñaan njabootam gii suñu borom bàyyi leen fi bu baax ci ngir la sëriñ Abo mi nga xam ne moo fi si moo fi taaw soxna May mun ak mboolem ñu bokkal soxna May waa Daaru Musi ak waa Mbacke Xewar ak ñëpp ak waa Daaru Salaam kon nag maanaam bis bi bis bu réeréer la suñu wadal suñu wadal ñu koy ñaanal yàlla na fi yàgg lool jotaay bi yàlla na yàgg lool te ànd ko wér bañ am menn ndox waaw bis bii nag bu bis bu ndax soxna si moo moo toll noonu soxna si moom euh, royukaay la boo xam ne nii képp kuy jigéen wala góor sax mën ngaa roy ci moom ndax euh, xam-xam ba ak alxuraan ja doon doomi Seexul Xadim yi nga xam ne ni mu ko jukki bindal ab kaamil mm-hmm. te loolu xam nga ne lu rëy rëy la amoon taalibe goo xam ne nii ku mu yar ku ne rek ah, feeñ feeñ na ci yow kon nag sëñ bi yàlla nga yàgg taxawee bis bi te lépp luñ ci ñaan yàlla na ko suñu borom nangu mu fekk fa mu tëdd ca àjjana ci barkeb Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh mbokki comme ñu ngi ko doon baaxoo defee boobu ba léegi rek ci màggal soxna May Kubra gi ñuy daj toogal sëñ Fallu sëñ Mour Abdou Khadir lépp yi si Abdou Khadir waaye sëñ Mourtada di maamam sëñ maamam lépp soxna May incha allah li mën a jëriñoo ci bis bi sëriñ Fallu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Mame Balla ñu ngi lay dalal nuyu tey jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di teg sunu waajur sunu xarit sunu sunu lépp sëñ Abo mi nga xam ne moom moo fi toog jotaay bi soxna May Kubra ñu di ko siyaare di siyaare njabootu soxna May gépp ak ñu ko seqal tey ñaan yàlla ñu yàgg koo taxawee. te sunu borom jottali ngëneeli ci soxna si gannaaw loolu tam nag ma laaj lan laa xam ci soxna may xam-xam bi nag xëy na bariwut waaye nag nopp dañoo wax ne moom ak borom dañ xam ci moom mooy ci njabootu Seexul Xadim la bokk ba noppi doon léppam nga xam ne sëñ bi bu fekkoon dañoo sëñ bi dikkuti nijaayam soxna bu so moo ko meññi soxna Aminta it sëñ Bousso bee ko jur nga moom daanaka dara am génn sëñ Tuubaa bu doon bàyyi bu doon ak bokk lañuy xool sëñ bi bàyyi ma nijaayam waaye nag ginnaaw yoon moom Cheikh Ahmadou Bamba moo fi nekk ak Xaadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba nag am nay am nay bokk am nay mag ami rek ami doom Xaadim Rasul ji nag juru ci kenn kenn juru ko ci moo taxoon mu wax moo Modou Fadal ne ko lii fi nekk dama leen ci bëgg laa biire muy képp ku ko wut si mooy sa baay di sam nijaay di sa mag képp ku ko defut jotewuñ dara yàlla dogal nag li nga xam ne mooy am bam mu gane àdduna sëñ bi daf ko yoral boppam boole ko sëñ Daam Abdourahmaan mu nekk foofu ci kër gi jàng ba wattu alxuraan bind ay kaamil ba noppi nag sëñ bi boole ko fat ja ngir mu jàng lii ma la wax ne la ku ko ci wut si muy sa lépp soxna Faty Dia it toqi ko ci taalibe googu nga xam ne moom képp ku xam soxna may ci modèle yi gën a rëy ci royukaay ci yoonu murit ci la bokk mooy ci waxinam jëfinam lépp njàngalam sëñ Tuubaa rek lay firiwaat loolu nag sëriñ bi yàlla daf ko defal ci tawféex ci ak njabootam muy daanaka amut góor ak jigéen ñoom ñëpp ku ci ne farlu goo xam ci góor ñi rek am na ci biir euh, jigéen ñi nga xam ne ñoom ay ay mboolooy mbooloo lañ defar yoo xam ne ku ci nekk buñ la ba beddi woon tegle ne rek royukaay ngay doon boo xam ne képp ku dikk ci yow dan ab dana doon ab jullit dëgg-dëgg dana doon ab murit saadixit moom lañ gën a xam ci liñ mën a jànge ci moom mooy jullit xaqan ba nag doon murit saadix yàlla defaloon na ko tawfeex ci sëñ Tuubaa it mooy dafa teel a xam sëriñ bi ba noppi nag dund ak moom ndax jolof la feeñe waaye nag euh, bari na loo xam ne it bi ko soxna Fat ja xamalee da koo defaat ci ay nit te ñooña ñi ngi fi nga ne foo ci dem danga xam ne toqin toqintu soxna may ma nga fa yàlla defaloon ko it jikko ju rafet joo xam ne mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi da ko tàmbali sëñ Moodu Musaa ba ci sëñ Murtala ku ci nekk tudde na ko doom ngir xemmem jikkoom ju rafet ak yarinam wu rafet ak lim doon ci sëñ Tuubaa te kenn ku ne bëgg loola sa njaboot am cëb cër moo tax ñu cëral la ko loola kon moom day day doon loo xam ne moom xëy na li ma bett tax waaye buñ ko tàllaloon ay jikkoom mën nañ cee jàngat ay ay ay jumlay jumla yoo xam ne bu ci nekk boo ko boo ko boo ko tàllalee rek mbooloo mën na caa jariñu ñu ñaan yàlla defal ko nag ngërëmul sëñ Tuubaa ba mu am moom ko may ba noppi ndax loolee xewoon ci kaamelam boobee ak la ci sëriñ bi wax lool sëkk doy na ko ab cër rawatina nag bi nga xam ne ñoom ñoom doom Sëriñ Tuubaa ñoom ñëpp ku ci nekk daf koo defoon nga xam ne mooy da ko séddoo woon daal ndax lii ma la wax am na ndax kenn kenn kenn ku ci nekk lam seq ak yow day mel ne yow dong la ko seqal loolu nag moo di mbaax mbaax balaa balaa balaa landi dëgg-dëgg kenn ku ne day jàpp ne kii man rek maaku ko moom loolu la ko yàlla defaloon ci jikko ju rafet jooju loolu nag su ko ñàkk de am ndax euh, fondation boo gis ñu tabax ca kaw dafa dëgër ba noppi moom nag ñaar yi ko seq ku ci nekk rek jaadu na mu jëlee ci jikko ju mel noonu te loolu rek la ñuy séntu ci moom tey ñaanal suñu boobu mi nga xam ne moo moo toog jataay bi yàlla na ko na yàgg te sunu borom defal ko fan wu gudd ànd ak wér ak njabootam gépp lii daal mooy lu tuuti luñ tànq ci lu bari ñu ngi ci sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk ni nga ko boobu ba léegi rek ñu toog mu sëñ Abdou Wadoot mën ñoo baaxee ay kàddu ci soxna si nga xam ne mooñ fi dajee damuñ soxna mañ moon a buntu say yoo xam ne dañ a jëriñ ci bis bi nga xam ci la ngay fàttali ko fii ji Touba Aynu Rahma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi am mbégte mu rëy ak cant gu ku tàm ak am fa mu tàmbalee te amul fa mu yëm ginnaaw bi ñu suñu borom boole ci bis bu tedd bii bis bu màgg bii ñu koy defal soxna su tedd soxna su màgg soxna su baax muy suñu maam soxna Maymunatul Kubra bintu Cheikhul Xadim mi nga xam ne ci ni ko ñëpp xame rek doomu Serigne Touba moom jëney tudde ju jigéen ak jëney tudde ju góor dafay mel ni tàqale bi du jëm ci wàllu jaamu yàlla ak mbaax ak ak yiw soxna si nag doon koo xam ne mboolem luy taamu ci góor yàlla yi ci wàllu yar bu mat sëkk xam-xam bu mat sëkk jëfe xam-xamam bu mat sëkk jikko ju rafet ak tàggat doomu aadama yi ci ak yiw ak mbaax ak jikko ju rafet moo nekkoon ci soxna tedd soos mu bokkoon ci ñi nga xam ne bokkoon na ci ñu am ci ndono laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana muy rogalaat ci Cheikhul Xadim waajur mu tedd wa ak doomam yépp waaye moom mii mu jël ci cër bu rëy liggéey ci liggéey bu rëy fésal ku itam ci ay mbindeenam ci fànn yu ne te lépp loo ci xool mu jariñ la boo ci xoolee te xam ko te jëfandikoo ko mën nga cee am te da àdduna ak alaaxira incha allah gannaaw nag te yàlla yamal nañ ci ñëw fii ci këram gii ci gànnaaro jumaay Tuubaa ji fekk fii ki nga xam ne moom la yàlla dogal tey mu nekkal ko fi di suñu wajuru bopp sëñ Abo Mbàkke mu sëñ Maodo Mamoun Mbàkke mu sëñ Gaawaan mu koy taxawu ànd kook njaboot gi yëpp ànd kook sët yëpp ñëpp àndoo nekk ci ku ne xam na ne màggale ku fi ñëw ren da nga xam ne li ñuy wax ne sëriñ bi mbiram amul tànk ginnaaw tànk kanam la am bis bi bokk na ci li ko dëggal kon nag ñuy ñaan suñu borom ci kàttanam ak mbaaxam bu dimbale sëriñ Abo mii mu gën mu gudd fan lool te wér lool te am kàttan ci saayir ak ci baatin ba lépp loo xam ne yéene na ko ci kër maamam ji di sa waajuram bii di soxna may am ko it ci waajuram wee ci Daaru Salaam ci Modou Mamoun yàlla dimbali ko boog bu ci nekk mu daccu lu kawe njort ànd ak gudd fan goo xam ne dafay nekk kiimaan ci askanu maaram ci barke Cheikh Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. bisimilah rahmaani rahiim kon mbokk yi ba tey ci interview yi ñuy def ci màggal soxna May Kubra gi ñu togg koo xam ni waajuram soxna Awa léppam soxna May la. moo ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko muy sëñ Njóobu Mbàkke mu sëñ tafsir mu sëñ Njóobu kon ñu jox ko kàddoom tam war naa waxtaana fàttaliwaat ñu leen jikko yi nga xam ne jite jikko yi gànjaru la ñu soxna May Kubra mi nga xam ne moo defar waajuram ba lim ci jëlee lépp ci bàyyi waajur la ko jëlee muy soxna Awa macha allah taala ba sëñ Njóobu Mbàkke lañ jox kàddu gi moon ñoo jox lenn ci ay leçon ay duruus wa ibar ci xayaatu soxna May Kubra bin Cheikh Xadim sëñ Njóobu asalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xamee ne eh, ci la ñu nekk muy bisub eh, soxna Maymunatul Kubra bintu Seyxul Xadim eh, ni ko Sëriñ Balla waxee xam naa ne soxna May moom daanaka duñ deñ di ci man di jàng ay bind yu dul jeex ndax dundam lépp euh, xam-xam la ndax euh, sayul xadim moo ko yar te gërëm ko kon nag loolu day wane ne mboolem ni Sëñ bëgg ku ni mel népp yàlla taw feexaloon na ko mu mel noonu ba noppi euh, yàlla dogal mu yittewoo woon di ko di ko def ci nit ñi danoon ab yarekat bu mag boo xamante ne bii mbooleem ñi taxooloon ñoom ñëpp defar na leen ba kenn ku nekk tànneef nga fa nga nekk di koo xam ne buñ ko dee fàttaliku li ci ëpp solo rek mooy jàngale ay jikkoom eh, bu ko defee nit ñi man di ci yaru di ci defaru loolu daal mooy li nga xamante ne bii eh, mooy solos daje bi te yàlla dogal it euh, muy koo xam ne bu doon ab xadis dañ naan muttafaqun alayhi la mbooleem ñëpp dëppoo ci euh, ak mbaaxam ñépp dëppoo ci euh, ak ràññikoom ak melokaanam wu sell tabaarakallaahu ahsanul xaalixiin muy koo xam ne daanaka mën nañuy def dundam lépp lépp mëneesu koo dajal waaye jamono yi nekk danañ mën di ci jël benn jikko bu tànneefu ñu ñu jàngale ko boo jëloon digganteem ak ay bokkam nga gis kenn ku nekk ni mu xëree ci moom ñi tuddee ko ay doom ñenn ñu nekk mu am ñoom ay xalaaxa yu dëgër ba nga booy gis ci bind yi muy bind sax eh, ku ci génn àdduna jiitu ko na mu koy melale ak ni muy wax yëg-yëg bi mu am ci moom day wax ne eh, léeg-léeg muy bind di wax ne biñ ko tàggee kenn ci ñi ñi mbokkal sëñ bi muy wax ne sama xol baaraw xolub yaayam lépp di wane maanaam diggam ak ñi mbokkal sëñ bi rattax gum rattax te loolu lépp day wane ak matam waaw ndax dafa bokk ci dëggu ci bëgg sa waajur mooy bëgg ñi nga bokkal sa waajur ñëpp loolu day wane matu dëggu ci ci bëgg gi nga bëgg bëgg sa waajur kon daal xam naa ne du jar guddal waaye <laughs> aleykum salaam wa rahmatullah